na acteurs yi nga xam ne ñoo yëngatu ci lu jëm ci wàllum tourisme ñoom Racine Sy mer nañu ba mara détail yi ni ki démb jano yi nga xam ne moom yor ñu dénk wàllum tourisme ci Sénégal ndax ñoom Racine wax ne lépp loo xam ne jëm na ci wàllum tourisme ci Sénégal ko ginnaawal dañu ko seetaan te bépp engagement bu état bu Sénégal jëloon loo xam ne ministre bi daan na ko a kaay na am yi ne ñoo yëngatu ci lu jëm ci wàllum tourisme jamono ci nag mer nañu ba ndax nee nañu crédit bi nga xam ne waxoon nañu ko amul lenn loo xam ne dëgg la ci lépp ay naxaatale nee nañu sax président Macky Sall dañu koy dugal ci ay erreur ci ay njombe ci ay giraawale yéene kaay gi di réew mi ko di jeex xëy dañu xibaar naan ñu attention banque mondiale daan nañuy alerté nee nañu nag maanaam njëg yi nga xam ne ñoo ngi wax ne njëg yi dafa yokku maanaam ay at yu bare bare bare ci kanam njëg yi mën na di gën a yokk li nga xam ne moo ko waral journal bi nee na mooy guerre bi nga xam ne moo am ca diwaanu Ukraine ak Russie yéene kaay gi di alerte xëy di ñu xibaar naan ñu nag guerre boobi nag du bàyyi benn secteur dara secteur yëpp ñoo nar am ay jafe-jafe waaye nag li nga xam ne mooy pétrole ak lu jëm ci wàllum gaz loole nag mën naa dem ba nga xam ne doom ju góor la nekk ci réew mi kenn du ko gisa yéene kaay gi da la Soleil xëy daal di koy feelu nee lu jëm ci wàllum énergie mën naa yokk ba toll pour cent bu dee nag lu jëm ci wàllum blé mën naa yokk ba quarante pour cent yéene gi di réew mi ko di cee ñu xëy fekk fa soxna si nu dénk ministre bi yor wàllum njaboot gi daan nay wax ne am na programme bu ñuy lancé ginnaaw korite gi ngir nag jëli xale yi nga xam ne ñoo nekk ci mbedd mi yéene kaay gi ko di cee bokk yaakaar ñoo ngi joxar bi baaraamu tuuma Barthélémy Dias nee ma maire ñoo ngi koy tuuma lu jëm ci wàllum détournement xaalisu mairie bi ndax nee nañu Barthélémy Dias embauchement yi nga xam ne moom lay def amul lenn loo xam ne lu si tegu ci yoon la yéene kaay gi réew mi ko di jee xëy di ñu xibaar naa ñu tàngooru metti wi nga xam ne moo am ca diwaanu Fuuta am ca diwaanu Tamba am ca diwaanu Kidira am ca diwaanu Bakel moo tax askan wa nga xam ne ñoo fa yeewoo bëri na ci ñoom ñoo xam ne dañuy daw ñëw Ndakaaru ngir nag daal di fi woore tàngoor wa jéggi na dayoo yéene kaay gi di bés bi xëy di ñu xibaar naan ñu fan yi nga xam ne na njombe goo xam ne na ci ba ci lu toll ci juróom benn ci ay sage xam ne tëjoon nañ leen ci kasu bi yéene kaay yi nga xam ne ñoom la ñu jàpp nañoo def googale njombe ak googale girawale la nga xam ne nag moo waral njéggal googi xalifa bu omariana moom nag moo si dox ay dànki jàmm maanaam moo si def médiation juróom benn soxna yooyu nga xam ne ñoom la ñu joxar baaraamu tuuma ne faatug asu soxna laale nañu ci tey jii la ñu leen di atte yéen gi de la turbine nee soo muy tuule nag maanaam nag sur su lañ leen di tuur yéen kaay gi di Sud Quotidien ñu xëy fekk fa union des syndicats ñoom nag tey jii daan nañuy woote ab mobilisation yéen kaay gi di Rewmi Quotidien nee na Papis Dembo Cissé mi nga xam ne ab international sénégalais la woon dañu koo dëbbali jaar dañu koo nax lu toll si ñaari milliards benn waaye bu tudd Mamadou Dieng nag nañu ko loxo bi mu demee tukki ba wàcc aéroport international Blaise Diagne yéene kaay gi de la Tribune ak Libération xëy dañu xibaar naan ñu am na benn xale bu jigéen bu am juróom-ñetti ata boo xam ne dañu ko rayoon ca diwaanu Bargny journal bi nee na ki ñu njort ne moo ko rey teg nañu ko loxo waaye nag xale boobee autopsie bi li mu wone dañu ko xoj ba mu sedd guy gars yi doon nañu laam-laamee wala violé wuñu ko waaye nag autopsie li mu wone maanaam mooy kenn violé wu ko yéene kaay gi di Stades xëy dañu xibaar naan ñu Ligue des Champions match aller bi niki jaar na